mahal jamilu safaral jalili ni mahadi bi habasa xalili حبي لله وللكتاب وللرسول قد ما عتابي jaa jëf mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ñu ngi fii ci marché Ocass bu Touba ci prépa préparatif euh, grand magal de Touba ni ñu ko xamee mu nekk marché boo xam ne marché bu mag a mag la ndax euh, waxuñu Touba sax waaye dafa am xam ne dañuy bàyyi ko ba ci yeneen diwaan yi ñëw fii di ut si ay marchandises. di fa wut si ay produits ci préparation màggal gi nag taalibe ko ci nekk ci bërëb bi danga fi ñëw ngir am loo xam ne da nga koy yittewoo ngir màggal gi nga xam ne Serigne Touba moom moo ko woote woon di fukki fan ak juróom-ñetti safar ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi mën a màggal màggal gu mucc ayib ñu ngi fii ci Touba Technopolis di bërëb boo xam ne Euh, ñi nga xam ne ñoo di clients yi euh, mën nañ ko bu baax daañu fi faral di ñëw di jël fi ay produits yu yu wuute dañ ñëw fekk fi kenn ci ñoom xam naa rek dañ koy laaj turam laataa ñuy sekk moom waxtaan soo si salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maam Diarra Boussa laa tudd. Mhm. maam Diarra Boussa laa tudd maa ngi. Euh, maa ngi nuyu mbokki téléspectateurs yëpp di leen ziar bu baax a baax di leen waajal baax. voilà ñu ngi fii Touba Technopolis ndax mën ngeen ko présenter ak yan produit ngeen di jaay ak naka ngeen waajale màggal gi. Mm. waaw Touba Technopolis benn place la boo xam si ni ci marché Ocass ci dëkk bu sell bi ñu koy wax Touba ñu fiy jaay bépp matériel boo xam si day wàll jëm ci wàllu technologie ay ordinateur bureautique ak euh, imprimante ak ay batcherie di defar ay t-shirt di def ay euh, impression grand format aussi mhm. ñu ngi koy defar bu baax. màggal mhm. gi nag ni ñu koy waajalee xam nga màggal bi mu ñëwee ñëpp dañuy seen xel yëpp day dem ci Touba waa Touba yi nga xam si ñoo war a dalal gan ñi aussi ñu ngi koy waajal bu baax a baax parce que gis nañ ne ñu ngi defar ay t-shirt pour di ci def ay màggal Touba di ci taataanal gan ñi di defar ay banderole aussi impression yu mag. Euh, wax dëgg yàlla am loolu moom mi ngi ciy dox bu baax même impression yi aussi imprimante yi tamit ñu koy dox bu baax parce que ñu bëri bëri dañuy def ay impression di defar ay carte badge yooyu noonu. Hmm. nañ tey ba léegi ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum audiovisuel caméraman yi et tout euh, dañuy ñëw te euh, dañuy bëgg di diffuser événement yi en direct est a ngi leen di ni waaw waaw ku baax waaw ñu ngi leen di jaay ay matériels yu baax yoo xam si dañ koy utiliser ci jëm ci wàllu audiovisuel parce que yu bëree bëri dañ koy jaay fii ay haut-parleur ay micro ay. ay projecteur yu bëree bëri ñu ngi koy jaay fii te ñoom ñu ngi koy ñu fi ñëw di ko jënd si bu baax a baax ay tripier ak kay ñu ngi koy jaay fii lépp lu jëm ci wàllu audiovisuel rek bu baax a baax est-ce que ko waaw gis seen bopp وخادني وخادني تقدمي لجمسة من أسس حويت في الله والرسول ما نويت xidmatu xayril aalamiin voilà mbokk téléspectateurs ba léegi ñu ngi ci marché bu tubaa ci wàccaayu euh, màggal gi ñu ngi kenn ci tailleur yi euh, jëriñ ñu ngi lay ziar baax ci laaj tur bi naka la. Euh, ñu ngi lay ziaraat baax tur bi si am sa doxuma la di ko wax ndongal xayra di xayra ko diir ñu ngi lay ziar baax di leen taw te di leen dal di wax noonu dal leen jàmm ci ñu ngee ñëwee ci xeeru euh, Couture. voilà boobu naka ngeen waajal màggal waaw waaj ko comme ni ko ni ko daa waajal ndax loo xam ne si ne bu ngeen si nekkee léegi mën a 2007 2007 ba 2018 yaakaar naa naa nekkul loo xam ne si ne dafa dafa gàtt lu gudd la waaw kat ak ñaar chaque année bu ñëwee dana ko dana ko waaj waajal wàccaay bu yéeme boo xam ne si ne dana fexe ba client yi bi ñuy jàmmante ak ñun nga xam ne si ne moom lañ bëgg. tey ci bis ci bis ci bis ci bis Seex Xaadim bi dañ ciy bëgg maanaam yu mucc ayib liggéey mucc ayib yoo xam si ne maanaam da da ngi def suñu kéemtalaay kàttan ba lépp loo xam si ne waxta euh, jëfandikoo na ak ak ñoom danañ fexe ba ba loolu ñu ñu def suñu suñu kéemtalaay kàttan ba lépp lépp lépp mate. kon instant bi fi mu toll nii mën nañu ne jëlatuñu ñëw wala yéen a jël ñëw ba léegi. non fi mu toll nii nag moom jëlatuñu ñëw ndax ndax dañoo baare ndax su fekkante ne da ngaa bëgg a màggali daa am bis boo xam si daa am kumba sàmb bu fekkante dafa des ay 10 jours wala 15 jours da ngay baare ndax moo tax li nga fi yor nga mën koo ñëw su su ko defee mën a màggali comme ñëpp waaw ndax loolu boo ko deful nga dem gis maa da nga day xëy te loolu te loolu bi dëgg la liggéey bi laaj sax waaye li ci ëpp mooy nga limité li li ngay jël su ko defee boo ko defee di nga di nga noppalu di nga noppal moo tax ñoom isaan bi isaan bi jëf di ñëw moom dañoo di ñëw ci màggal yu gën a bëri. waaw li si ëpp mooy comme ñëw yi rek xam nga tubaab ku xam-xam ne ci ñëw yi la ñu xamee li si ëpp ci li ñëw mooy dana fi ñëw taybaas dana fi ñëw rabu rabu taymaan bire bire bire ñëw góor yi baanaak sarik dan daf ngay ñëw ngay ñëw bàyyi dana ñëw euh, grand bu dana ñëw tamit comme trois quarts yi ñu nga xam ne daal ñu daal lépp loo xam ne màcc na ci wàll ñoom dañ koy ñëw waaw moom moom moom moom moom li li lépp ñu mooy mooy ñëw yu yi daal yu nga xam si ne moom la da nga ko mën a sol dugg fu la neex tey kenn du sëñ bi li nga sol wala sol li nga sol loolu moo daal lépp loo xam si la temps yi tamit yéen a ngi fanaan. waaw dañuy guddee lépp waaw dañuy guddee ndax soo ko da ngaa fanaan dafa benn boo fanaanee da nga naajee xëy te naajee xëy yaakaar naa wàcc waaw wàcc ñibbi teel a xëy si moo ko gën waaw moo tax moo tax dañuy guddee rek waaw boo maanaam boo ba ay 3 heures du matin wala wala 2 heures wala 2 heures du matin nga poos dem ñibbi su ko defee 8 heures nga mën a xëy si waat waaw waaw da ci liggéey bi. الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه ما شكرته به بقولي خاب سفر الخراج طيبهم بالله أبو رضا waaw ñu ngi waaw maa ngi ñu waatal bu baax ñu ngi waatal bu baax waaw ñu ngi waatal waaw ñun ay décoration lañu jaay ñu ay décoration lañu rek ay góor fu rek ay léegi rek yow daal la ñuy jaay waaw loolu la ñuy jaay. est-ce que euh, jigéen ñi ñëw waaw ah, ñu ñëw baax ñu sant yàlla rek ñu sant yàlla ñu ñëw baax nga wax jàll waaw ah, te war fa kàll macha allah ah xam nga rek ñu préparé gan ak yow rek waaw préparé gan bëgg seen gën a naaj gën a rafet rek waaw ah, loolu moo tax ñu koy kii daal waaw waaw ñu ñëw baax ñu sant yàlla baax waaw waaw ñu ngi koy wàññi baax ñu fi def xëy baax waaw maa ko tàggat rek. أن النبي لي قاد حرخ العادة ثلاث من له البقاء والقدم هلا انتو اللي ينشي واتاي ماغال ماغال جدا نيحنا خيولي بارينا ma ne ko màggal gi neex na xéewal yi bari na ñu ngi koy waajal moom ndax sëñ Touba amul moroom wax dëgg yàlla ñu ngi koy waajal ah lépp rek def lu baax rek teeru gan ñi yàlla defal ñu xéewal defal leen xéewal ñëpp am jàmm réew mi jàmm sax fi jërëjëf ah, bagage rek pour teeru gan ñi waaw yokkuñu ko moom xéewal la moom Touba moom xéewal rek a fi am incha allah waaw lu baax rek jëm ci kanam jërëjëf جند بأنفك لغير الكبل أنا لني خفي جند الله مالك وآية كل لاهب جاد لي الوهاب في اتباقي بجاذب ليمن السباق بتأديب جميل الباقي لا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا قدر وله الحمد والشكر والمنة أبدا الماضي والحال والاستقبال لي سكينة بكل الجنة من دار المنن يا المنة لي سكينة بكل الجنة من دار المنن يا المنة